xamal ma Adji Sarr musuma yaa ngi koy sas rek mais musuma gis nit ku ni violé muy muy muy préparé naan dellu ci dem ci borom këru ki moom salon bi naan ko waa yéen Sonko kañ lay ñëw def ko ñaari fan niw naan ko waa Sonko du yéen ko woo mu wax kañ lay ñëw mais loolu gis nga Babacar waxee wuñ ko nii bàyyi mais noonu la demee bul yokk noonu la ko waxe dani moo fi ñëw ñaari yoon dama laaj Sonko kañ lay ñëw mooy nit koo xam ni danga naan man damaa war a waajal nit ki nga xam nee na violé na ma violé waat ma violé waat ma ba ñëwaat ci ñeenteelu viol bi moo tax mënatuma koo muñ te bu may violé day yore ñaari arme il faut que les sénégalais gis nga wax bu def bu dafee yow mi koy déglu ak say nopp nga nekk nit gis nga aji saar bum ñu yàpp na réglé ñu nekk ci gannaaw bu ñu bu ñu bu ñu jaxase sunum réew yëfu salte yi comme ni ko président de la république waxe ba mu ca paree lam ca waroon a teg te ñëpp doon ko xaar nee na moom yëfi salte yi complot yi ci bokk kon nag man japp na ni comme mom neena yene dossier moy wax procureur ak ministre de la waxul salte dañu yu suufee yi du ko def mais yu salte rek moy yu salte parce que Sénégal aduna bi yëpp ngi ngi ngi ngi ngi gis ngi ngi wax ci kawti kawtee Sénégal ci ñak fayda yi au moins où nous avons des priorités ailleurs au moment où il y a d'autres enjeux c'est dommage pour mon pour mon pays c'est-à-dire que li xew ci réew mi président de la république comme ni ko waxé ci yenn dossier mo moo naan teg ci souf bam waxé lol ba paré xam lu ci waron waroon teg teg ci souf parce que mo ni amna dossier yo xam ci mom bu ko nexé dam dam teg yow daal ah fi ñu toll nii ngay wut parce que gis nañ ne sax sa débat bi nga am amaloon wa déglu ma déglu ma déglu ma débat bi nga bëggoon ak El Diouf bi nga am seqoon ak El Hadj Diouf keroog aljuma ca Sen TV nga génn ne ma gagné way El Hadj Diouf dafa nekk ci réew mi di jaay nit ñi rëy lamine ma wan ko ni ma gën a lamine ma maa gagné débat bi xam nga itam loolu est-ce que taxawaayu kilifa la loolu sa xalaat la non attends attendez xam nga il faut qu'on soit sérieux quand les gens me disent que yow euh, pour certains noo war woon a àgg fii euh, El Hadj Diouf ma répondre ça n'a rien à ak ñëw man defuma loo li ngay wax noonu parce que El Hadj Diouf c'est un citoyen sénégalais mais mënta nekk fii di yàq deru jàmbur te moom kenn du ko tudd boo yoree lu ne weng lo xam yow lañ la ci lañ la ci du luñ la jiiñ yow wuro nek di wër di yak doomu jambour jo xam ne ben élément de preuve boo teg ci loxo nit ñi parce que encore une fois ce dossier là est un dossier vide qui doit être classé sans suite lool moy deug keneen ku wax leneen la neex sa affaire la mais ñun liñ japp moy jaay doole bu metti la ak ragal ab candidat bo xam yaakar nga ni boo ko faagaagalu Alaaj Juuf la mën de Alaaj la mën mais loolu ci la nga yaakar rek da nga déssé xam dambu bu bu fekkente ne man nekkuma sax non defuma bërki dé ma nga alaaj Diouf nag moom yàgg na dama ne la loolu ci dara gis nga Sénégal xam nga lu jaawale at yu bari ak ak vécu gis nga man dama la bëgg a xamal la man dàmbooj du ma ku ñuy écrasé ba mu ñëwee ci débat bi la mu bëggoon mooy ñëw dox ci kaw dàmbooj comme ni mu ko defee ci beneen tele dàmbooj nag du n'importe qui pour loolu pour mu leer nañ bu ko te loolu li koy firndeel mais daam kii non man man may dàmbooj yaa may dégg di doomu Abdou Jëmbooj ak mu fay gëm boppam dëkk ngumba ngeewul ñu am jaar-jaar jaar université dafa ay jaloore nekk ci njàng meeg njàngale mi di respecter samay droit droit jàngale yaa ngi yaa ngi convoqué yaa ko teg yaa ko teg dama ne la dama ne la dama la dadul loolu c'est-à-dire que dama la bëgg wax ne la man nekkuma fii di def comme yenn sénégalais yi di ruube xam nga la mooy dëgg sénégalais yi dañuy gis dëgg war cee teg baaraam